la sëñ Abdou waxoon rek ma delluwaat ci man ku ma defal dinaa la sant ku ma defalul dara sama yoon nekkul ci yow dafa am loo xam ne dañ koo bëgg a moomale géwél mais géwél dafa bëgg lu baax rek mooy ku ma defal ma sant la ku ma defalul dara duma la sant mais loolu alxuraan diine ko wax sëñ Abdou wax na ko fii géwél yi dañoo bëgg lu baax jël loole def ko muy seenub cër waaye cërum ñëpp la ku la defal nee ko jërëjëf parce que gis nga Sonko bu doon ni ñuy weere ñiy def lu bon noon la ñuy weere ñiy def lu baax adduna sépp danañ def lu baax waaye man li ma mënta dégg li ma mënta gëm kum neex nag mën nga opposé mooy ko def lu bon dañ laa war a dugal ci réseau sociaux yi publier ko siiwal ko incroyable Mamor Mbacke un animateur de la RFM un un nouveau scandale waaw bu ma defee lu baax.